ñu ngi lay nuyu ah di la laaj ci diggante combat bi nga xamante mooy dox ci Modou Lo ak Ama Balde yow lan nga ko gisee. combat bu doy waar ngay wax noonu noonu noonu. diggante Ama Balde Modou Lo. lu bari. na loo def. waaw. kan mooy jox ama waaye man de joxuma ama favori. kan nga jox favori. Modou Lo laa jox favori. kon dañuy teg foofu suñu loxo yéen lan moo tax nga def ko favori waaw daa doon mbër mu naqaree bëral mhm. mbër mu doy waar mhm. te boo ko suturaloon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mënoo koo daan muy kan mooy Modou Lo mhm. waaw faaw nga ñeme ko dëgg sut korolonge mën koo daan mais bu dul loolu caaxaan daanu ko de waaw kon nañ teg foofu suñu loxo te yoonu yàgg waaw beneen jaajëf ñu ngi jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Martou Sessène ancien gloire ñu ngi lay laaj ci diggante combat Modou ak Ama kan mooy favori waaw pour man moo la jox favori Ama laa koy jox. ah Ama Baldé. ah moom laa def favori. lu tax nga def Ama Baldé def favori. dama xam ne Ama dafa si yoon. Mhm. waaw te Modou Modou moom nekkul ci yoon. non Modou Modou nekkatul si yoon parce que Modou yow boo xoolee Modou na mu meloon ak Modou léegi. Mm. am na différence de. Mm. Modou toppatoo làmb 100 pour cent de. Mm. moom boo woon na presque sax. ah ah Modou. loolu de mosuma ko yëg. ah moom Modou xam naa. avance bu daan. mais mais ñaari avance la lekk est-ce que liggéey bi gënul metti am moo për may dañuy lekk xaalis nii rek mais lam sonatu leen de hmm. seen xaalis la lekk nii rek hmm. waaw yaa wax loolu maa ko naa yónni yàgg <laughs> jaajëf mais mbokk mi Baye Fall ñu ngi lay bégee bu baax a baax di la ziar fas yéene waxtaanee yow ci diggante Modou Lo ak Ama Balde sigil ñu waxtaan. a Lo moo mën Ama Balde. ah moo mën Ama fan ko teg. xam ko. ah xam bëreem xam mën-mënam. xam neexu boppam. Hmm. moo ko mën. Modou Lo moo mën. fukki bëre fukki jël. Hmm. waaw. cant ngërëm ñeel na la. <laughs> Boy Séeréer. kooku sama rakk la Modou Lo Ama Baldé laa lay laaj yow nan nga ko gisee. waaw ah, man laa faral. Ah? Modou Lo laa faral. yow da ngaa far quoi. man de hmm. kon baax na kon yow da ngaa far yow mais mais en ce gloire ñu ngi lay nuyu baax di la ziar Modou Lo Ama Baldé lan nga gis. Ama Baldé moom man. ah Ama moo mën Ama waaw. fan nga teg ne Ama Baldé moo mën. Ama bu ko jàppee mu jeex moo ëpp doole. moo daan Ama moo ah. bu ko jàppee mu jeex. bu ko jàppee mu jeex. tak est-ce que jàpp lu leer daal bu ko jàppee mu ah. na nan yónni <laughs>

lan waaye yow amaa de. waaw ah, lu de. amaa day daanu de. Ah. lu mu def daanu bu ma ko dóoree mu jeex bu ma ko ah? lu leer laa ko dóoree mu jeex su ma mu jeex <laughs> lan nga yëg jégal ma ko rek non non dama lay laaj rek Modou Lo Ama Baldé lan nga yëg bi moom combat bu neex lay doon waaw lan moo tax nga ne combat bu neex lay doon waaw dama xam ne Ama moom bu ñëwee pour xeex moom day ñàkk combat waaw waaw mais nga foog ne ni ko gars yi amaa Ama Baldé dina yomb noonu non du yomb combat la mm-hmm. combat la Modou Lo mm-hmm. la bu métti la mm-hmm. waaw mais kan mooy favori favori bi Modou la Modou Lo mooy favori. mooy favori waaw lan tax mu doon favori. Modou Lo moo ko dàq bëre. Ah. da ko dàq bëre waaw. Ah. Mm. waaw kale xale la am na. mbër daan na ba taay ku ko dàq bëre ah. waaw loolu am na mais combat bi man lu may conseillé Ama. Mm. maanaam na indi bëre rek. Mm-hmm. combat bi bu mu yàgg. Mm-hmm. mais bu a xeex day ñàkk. Mm. waaw day ñàkk. jàmm ngeen ñeel na la. waaw jaajëf jaajëf. <laughs> Eh, a xarit. dégg naa la ziar la Modou Lo Ama Baldé. ah Oma da koy daan. ah da koy daan Ama. fan nga teg na Ama Baldé da koy daan. ah da koo gën a nekk ndaw ba pare. ah gën koo jekk daal instant yi muy def yëpp ah stratégie la. mais mbër jekk na ba arbitre suuf mu ñàkk combat ah. ah moom du ko ñàkk. ah du ko ñàkk de. ah roi bi daa jot waaw. lan moo tax ngeen du ko ñàkk. roi bi daa jot daa jot. roi bi moo jot waaw. ah waaw baax na jant gërëm ñeel na la. waaw maa leen di bëgg. boy. combat boobu ñu fas yéene waxtaan ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ban yëg ngeen am. waaw neex combat boo xam ne yaa ngeen ko jàpp ku ci nekk toogalu yàgg bëree woo waaw ñu ñaan bés bi ak si jàmm rek ñu bëri si jàmm di ñaan Modou Lo yàlla may ko ndam te am ci yaakaar nag ndax gis nañ ci moom ne instant lamb yeewu war na ci moom. mais mais nga ne combat bi dañ koo jàppoon muy yàgg boobu ba léegi ñoom ñaan ñëpp kenn bëriwul est-ce que mbër jekkutoon ne daa gaañu waaw bu njëkkoon man sama gis-gis jàpp naa Modou Lo moo wutal làmb ji. Ah. waaw man gisoon naa. tax ma ne woon daa gaañu. waaw loolu ah. gis naa rek moom instant bi moom jàpp naa mu ngi ci làmb ji. mais gëm nga ne làmb ji dina am. am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax. man de bala maa gëm ne làmb ji am na at bi daa suuf. ba man gëm naa dana am te incha allah te làmb yi du ko hmm. si morom ndax. am bëree wala du am bëree ak xeex lay am. non dina xeex moom faaw ñu xeex. mënuloo a non xeebu du yàgg na ama ama xeebu arrangé wu ko. Ah. non non. mais ama Baldé pank pangalang la. ama pank ne mais ama du xeex ak Modou Lo. Ah. Modou Lo xëy na ñu bëri na ne ama moo gën a diis loxo. mais Modou Lo moo gën a diis loxo ndax Modou Lo daa bëri waaw. kon baax na nañu yónni yàgg mais kan mooy favori. non mais Modou Lo laa jox favori. naa jox favori